Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Mbokki Màkka TV Asrarul quranul karim ñi nga xam ne yéen a abonné wu ci chaîne bi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen Kontane, waaye di bëgg wax ci top gi di ñëwaat ak yeen ci secret yi comme nuñ ko baxo bis bu ne inshallah rabbi euh tay ñu fas yéeneel indil leen secret bu am solo ci ki nga xam buntu wërsëgam dafa tëju dafa tëju कि वो लोअर इन रबी busaqale si rek inshallah sunu borom dana ko ubbil buntu sa yëpp mom man di ah al bu baax baax sikar bi ngay def inshallah boo ko mënee saxal bis bu ne baax na boo ko mënee def ci semaine bi ay yonit Ah, takul takkul fenn loo ci def rek baxna bis bu ne nga saxal ko ci diirub 40 jours baxna bu la neexee nga continuer non inshallah et tax bu wërsëg bi gëna yok rek inshallah lo ci def rek waye ci limu 1200 koy def 1200 do ko wess ñaari junni ak ñeen fukk ñaari junni ak ñaar témèr manam bu la bés bu ne mën nga koo def ñaari junni rek ñaar téeméer mu nekk lu am solo mooy astaxfirullah astaxfirullah alazim allasi la ilaha illa huwa alxayyul qayyum wa atubu ilayhi أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه nga 1200 francs incha allah rabbi di ci def yenn ju sell saabaram def tawfiq bu baax a baax ba buntu wërsëg yëpp ubbeeku kon lii la leen indiloon ci seen di la wax ngeen ngir di woy di abnaw ci chaîne bi Makka TV asraarul quran jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Euh, di fàttale bu baax baax ni am na téere yoo xam ne ñu ngi ko fi weccee muy lasaraar bi ak téere bi nga xam ne daa aju ci wàllum nopp képp ku war ci numéro boobu ngeen ki ci suuf rek bu soobee yàlla daana ci mën a jokk ngeen incha allah euh, ñi nga xam ne doon doon faral di laaj euh, di ni wax karaafiilu sirru karaafiilu ku ko soxla am na fi incha allah kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh